ndax tey yàlla dafa def ci Sénégal élection yi am fi ci Thiès amul fenn dañoo def élection ci jam ak salam. dajé nañu mais say ñu dajé dañuy rafétal lolu motax man may ñëk remercier di féliciter aussi les acteurs politiques ils ont montré quand même que am nañu benn pas-pas ak benn taxaway

inshallah ñepp xey delu ci wat dem seen liggey lolu mom moy li nga xamne moy ndamu Thiès ndamu Thiès tam moy ndamu Sénégal di lu tam bir campagne bi ni nga xamne non lañ ko doxale fuñu dem dañu doon safonté suñu ak suñu wa xarit wa ar wala suñu ay rak yi nga xamantene ño nek yewi Yewwi ak ñeneen ak ñeneen fuñu dajé dañuy wacc safonté lolu mom moy li nga xamantene moy ties deuk ben ben bop la kenn mënu ko xar ñaar remercier tamit tay sama jeune frère muy le ministre de l'économie numérique numérique Yankhoba Diattara yàlla def na tay amna lo xamne dañ ko def ci bir campagne bi muy lo xamne kenn mësu ko gis tarikh la politiciens d'habitude dañuy six ku ne day yor la nga yor rek di dawalal sa bop di jaay sa bop mais bi dañoo woné auteur wane communion maanaam bokk booloo boo xam ne mësuñ ko gis sunuy jeunes yi jaxasoo bokk loolu moom dama ko rafetlu tey te mënuma woon ñëw taxaw fii te du ma ko remercier am na loo xam ne sax kenn du ko wax dem nañu ba sunu alal dañ ko boole la mu am ak la ma am la ñu jël fu mu jëm day ñëw rek waxtaan ñoom ñu jël yóbbu ba mu jeex ñu daal dina jeex na luñ ci amaat ñu yokkaat ko loolu moom mooy wane que solidarité boobu te solidarité boobu nag. dafa jóge ci kaw président Idrissa Seck ak le président Macky Sall ñoo ko wane wan ñu yoon bi ñun tam ñu taxawee ko suñuy rakk ñii ñi ngi toog gis ni moom mooy la responsable des jeunes de la zone ouest muy Farba su fi nekkoon a jaaji fi lay toog jaajee ngi ni ma ngeen bokk xam na foo ci gisee kenn ki gisaat keneen ki ñoom ñëpp noonu la ñu mel bokk ndey bokk baay loolu moom mooy wan ni nga xamante ne tey xol bokk nañu te yàlla nee na su xol yi bokkee rek yàlla ngi taxaw kon yàlla ñu te yàlla may ndam ba incha tey 19, 21h, Man suis venu à fille, fille suis venu à voter, ma suis accompagné,